reprendre li nga xamné ne lañ doon wax sank muy concept émission bi nga xamné ne takkusaanu nawetaan lañ ko tuddé euh, ñu koy def ak euh, réseau internet bi nga xam mo tuddu freeinfo.com info point jotal vraiment di remercier le président mu aussi tay bi mako woyé presque daf mo wax mu ne mo amul problème dina wax président ñu waat président aussi mu confirmer ñu lolu te xam nañ ne démb ci match ngeen jógee peut-être tay da ngeen war a toute la journée mais ñu ngi leen di jaajeufal ci lolu bu baax.

mais aussi Maguette aussi moom it mu caméraman infographe nek technicien ci li nga xamné vraiment moy liguey ci xaralé euh, yakarna né man xamé ngeen ma muy Cheikh Ndam ndjay nek aussi di jouer rôle euh, rédacteur en chef mais aussi di jàppale sama frère ci liguey bi nga xamné ñom ñoko bok euh daoude sey mo nek ni moy PDG bi nga xamné moy free Info donc monsieur le président ñu ngi lay jaajëfal di len féliciter aussi ci victoire bi ngeen am démb té bu dee kontaan ngeen si ma bëgg ngeen tàcc sen bop bu baax ma dégg parce que c'est important

Euh, merci beaucoup, grand cheikh. Euh, pour nous, ma xamul maa ngi euh, président ASC Djankalar bu zone 1A au décave de euh, Nek vainqueur tournoi première édition tournoi du sifflet bu Soukra de Kungel. Je remercier initiative bi def et que di kontaan trop euh, nekk première euh, premier numéro bu jotaay nawetaan di leen félicité di leen ñaanal parce que on sait que Firi Info bi mu juddoo yàggul mais liñ commencé gis si yéen dal na xel di ñaan rek mu nekk loo xamante ni day pren yàlla teg loxo ci lépp li ngeen di def et euh, am neen ci yaakaar mu ànd ak jànkalaar aussi ba fuñ bëgg a yegg ñu yegg fa parce que ñoo bokk koñ siège ñaari siège yu soriwantewul d'ailleurs merci. salaamaaleykum mbaa mbooloo bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal ku ci nekk ci turam ak santam di wax ne que nu ko daam waxee rek man la Kunta Nous tey AIS Diankalaar d'autant plus avant de commencer quoi que ce soit nous voulons di féliciter parce que vous avez bien joué et que victoire est venue, donc on vous félicite toute l'équipe de Free Info vous félicite et que nous avons ñaan que bu mu victoire top ci monsieur Aliouba, je man ma bëggoon xam bu que ni avez tur bi fu création depuis combien de temps la taxaw que vous avez xam. Ok, merci Adjaratou Fatou. merci Adjaratou Fatou euh, Dina sawar Lol ci ñëw ci wax la création ASB bi fu bon je précise que man depuis 2014 la fi est président mais pour voir que ni affaire bi continuité la ak euh, xarañte bi engagement man pour dire vrai bi ñu créé ASC Jànkalaar fekkuma fi mu ngi ma fekk ma nekk euh, élève di jàng à Dakar euh, mais initiative bi mu ngi jugee si suñu grand yi ñu leen di saluer de passage euh, muy Badou Ndour ak Amar Sarr Mamadou baax ñoom Aminta Faye euh, ñoom Pape Ndiaye bu Poa Mor Dior Ndiaye ñoom Jebel Mbaye et tant d'autres ñoom Youssou Ndiaye su ma naree cité damay jum ñoom ñoo dajaloo parce que euh, période boobu noonu ñu ngi doon gis xale yi di foye bal bi ci koñ bi di bugg compétir di bugg fu épanouir ñu gis que ni léegi jot na ñu créer ASC fekk na nag euh, ñu si bëri ñu ngi woon ci yenn ASC may nuyu ASC yooyu de passage muy xay gi jamono ak jàmbaar léegi biñ démé ba gis ne tamit euh, instant ni war né mu démal suñ bopp ci leen jël initiative ñu dajé ñëmi i ñu choisir tour boobu non am kuko proposer euh ñu xam tamit jankalar limi défaté mhm. ñu ne boobu dina collé bu baax ak euh, ASC bi mhm. c'était en 2007 buñ ko créé en 2007 bon ñu commencé won def ay résultats mhm. mais wul won non. Nous euh, dem vers 2011 euh, ñu am ay difficulté ASC bi existé Il woon a def maa ngi doon jàng ma pare jàng ñëw fi en 2000 janvier 2014 bu ma ñëwee euh, ñenn ñi approché ma pourquoi pas nous décaler ASC man timid j'étais preneur ma sawar ci trop trop kontaan ci ci kaw lol le 14 août 2014 lañ organiser suñ première réunion mhm. ci première réunion Bob non ci ma proposé nekkutoon sax vote suis proposer ma président ma accepté aussi mais aussi mobiliser euh, euh, nous allons nous imposer mouvement nous allons tout faire pour nekk championne yàlla def ci année boobu noonu lañ finaalu régional catégorie cadette. Mhm. ci lañ loolu tamit bokk na ci ñu yóbbu phase nationale donc euh, historique bi daal mun naa ni foofu la jógee en quelque sorte. donc yan bi la xale yan ECASAS bu ñu la sas yàlla na yàlla def nga àggalee ko ci sago mais aussi. bëggoon nañu xam parce que man jigéen laa et su ma waxee que jigéen yi laa war a plaider gis naa fi peut-être benn nombre de filles bi. ñu bëggoon xam ci biir AS bi ba xam am ngeen soutenance su jigéen yu leen di soutenir. Mhm. que mu nekk bu match jotee state mhm. wala que ci koñ bi wala que ñoom seen soutenance ci supporter match yi dong la yem. bon euh, mun naa ne loolu bokk na ci force su jànkalaar euh, jigéen ñi seen présence ñu ngi koy sentir bu baax. du ma ne doy na donc dañ leen di gën a ñaax rek ñu gën a yokk lu ñuy def mais bu ñuy waajal match ñoom duñ yendal duñ fanaan duñ tëdd duñ nelaw ñu ngi ci lekk ñu ngi toppatoo joueurs yi dirigeants yi boo leen gisee rek da ngay sentir mbégte mi si seen kanam. donc mënuma lu dul tamit di leen féliciter ñoom di leen remercier xam naa ñu bëri teewuñ sax parce que dañoo tooy. parce que dañoo fanaanoo fecc fanaana a jubilé waaw. d'accord mais aussi bëggoon nañu xam que AS Jànkalaar am ngeen un projet en cours wala que développement wu AIS bi fan la toll. jànkalaar euh, bëri neen projet et que lu bëri euh, ma profite aussi aussi remercier staff bi staff actuel bi j'ai l'habitude de le dire hein, je le crie haut et fort je suis le président de l'ice Jànkalaar mais man je dis souvent que c'est Racine qui est mon président staff bi yëpp ñu ngi liggéey ñu ngi def un travail extraordinaire ma bëggoon ngeen tàccul ma ko Racine ak tout les staff man dama koy woowee seen président parce que ménager wul benn effort pour lu jëmale ASC bi kanam mom ak ñëpp nak ñim ci andal que ça soit Jean Thier les Thierno Moutarou ñëpp suma naré cité Alpha dina djum mais ñu ngi liggéey ci ay projet yu bëree bëree bëree bëri et que ñu may ñu rek quelque temps dineen gis loo xamante ni ñu ngi ci di liggéey et que dina bénéfique aussi pour le mouvement sport kounguelois dina bénéfique aussi pour la jeunesse koungueloise waaw mais ñu ngi ci ñu ngi am ay projet yoo xamante ni daal euh, du yem rek ci es bi su ma ne es bi mooy euh, sport bi mais ñu ngi liggéey ci lu bëri ci suuf daal d'accord xam naa monsieur Bakane dama lay ñëw bàyyi ak sama naataango muy ndaam moom tamit mu am yenn laaj ya nga xam ne dala koy laaj ci li nga xamante ni moo di AS bi. lu ñuy ñëwaat rek mooy comme continuer li nga xam ne moom lañ la doon laaj euh, xam nañ jànkalaar dégg nañ histoire bi nga ci expliqué euh, fi may ñëw nag mooy démb amoon ngeen final bu mag daaw aussi macha allah championnat bi gis nañ li ngeen ci taxawee catégorie cadette ak catégorie senior junior senior. mais démb bon bu ñu ci match bi ñëw ci démb quoi ñu gis ne vraiment ASC Janklar bon côté mystique bi dal gis nañ né démb xaw nañu jaaxal dal ñu bëggoon président lolu nga ñëw ci dal bëggoon nañ vraiment nga ñëw ci dal euh merci euh, grand cheikh. Mm -hmm. euh, bon je dirais pas côté mystique bi. Mm -hmm. mais juste dama naan final bi. Mm -hmm. bon final bi dal préparation bi nga xamanteni ni yaakaaroon na ne buñ ko préparé. Mm-hmm. et que mu nekk dans les règles de l'art mm-hmm. buñ ko défé yalla may ñu ci ndam def nañ ko mhm. képp kuy dem di wuti nak mhm. muy espoir muy lenen mhm. di nga dem ci ki nga yaakaar nga talal ko loxo ne ko ñaanal ma on l'a fait euh jori aussi bay ci sen waar di entraîner goudi beccëk dañ doon dem euh, xam nga suñ koñ bi bon ñu ci remercier aussi euh, municipalité bi amna ay solaire ay solaire jori dañ doon ñëw ba heure teud ma gis ku melni Moussa ay ñoom euh, Ousseynou. Mhm. Euh, dem ci poto lamp yi. Mhm. di complété foofu noonu. di complété donc même bu ngeen gisee mystique. Mhm. Euh, préparation technique bi. moo moo jiitu ngi fa moo jiitu. mais yére yére yi ñu gis ngeen sol démb nag yére yi ñu gis démb stade ngeen sol ko. yooyu dafa jaaxal nit ñi ñun dañu bëgg moo tax ñu bëgg a xam quoi réalité ndax loolu réalité la ou mythe la quoi. parce que gis nañ ngeen sol ay yére njulli je ne sais pas wala ay genre yooyu quoi loolu tam président bëgg nañ nga ñëw si ñu xam. ok bon l'ol juste euh, c'était comme final nous avons dit que. Vous avez dit que c'était la wala réalité la. non je ne dirais pas que c'était la réalité mais ce que je peux dire là, mhm. moi, que nous avons dit que ni final bi euh, fait, la

kuy jongante ak garab gi mhm. euh, du ma ne tiit mais mhm. di nga xam ne yaa ngi jongante ak équipe bu rëy mhm. bien que préparé wu nga mais bon doo tiit sax mais di nga xam que ni tamit football day am et que jeu la dañ doon ñaar rek liñ fa nekk yëpp euh, ndam li ñëw si ñun ah, c'est vrai en tout cas bu génn suñu kër bu dem stade euh, confiance leen yóbbaale confiance nga yóbbaale la preuve joueurs yëpp dañ ne coach bu ñu demee ñun duñ mun nekk di football. Mhm. Euh, di fecc. Mhm. mais yow mi ne ci banc bi. Mhm. feccal ñu nga rassuré ñu supporters yi. ngeen gagné. waaw moo tax Jean nekkoon ci touche bi aussi. di fecc di fecc Jean mooy ñoo ko ko wax sama kanam maa ngi foofu noonu. mooy coach bu ñu demee feccal ñu nga rassuré ñu supporters yi. dëgg la lu métti métti incha allah. Euh, gars yi duñ ñu gagné. mais à peu ñaata paan ngeen sangoo affaire yooyu loolu tam mën nañ ci xamoo. bon Euh, ñaata paan ñaata siwo affaire yooyu loolu xam nga charme nawetaan la quoi damay laaj rek quoi. da nga dégg dañoo sangoo non damay laajte damay laajte et puis beneen bi bëgg a dugg bon Barça la ñuy tuddee jànkalaar wala Real ainsi de suite parce que mhm. jour daf leen jaral dal da ngeen jëli ay jour fu leen indi ko gérer ko nan ngeen di dundé affaire bobu non ndax metti na wala méttiwul. ok pour sangu bi foog na liñ jot sango sax wa garab gi ñooñu ko jox ñu sango ko. Mhm. euh, mais par rapport ak euh, recrutement bi. Mhm. euh, ñu bëri des fois dañu juum. bon ñi ñi tuddee. gars yi dañuy wax da ngeen fay 600000 jours 700000 affaire yoyu bon ñun suñu joueur yi fi ñëw mun naa ne fayuñ ah joueurs yi fii ñëw dañu bëgg mu leer rek quoi ah, fayuñ leen mhm. parce que amuñ seen fay ok parce que ñoom dañoo ñëw mhm. gën ñu bëgg ASC bi dëgg la may wax gaay ñu tàccuwaat leen bu baax alors donc euh, je pense que président du la continuer. continuer allez-y demande, waa Je euh, man les comme mercenaires. ay je les considère comme mes frères. et que nous, nous sommes nous bi la preuve les dirigeants, xamante dirigeant war na ko def nous bi. Mhm. Les en mhm. dañ koy donc ñoom dañu ñëw taxaw taxaway jour. Mhm. taxaw taxaway dirigeant ak euh ba paré dañ fi yàgg. ko xamanteni fi le football cadet. Mhm. je précise que Moussa mo nekkoon euh, suñ capitaine cadet. cadet national en 2015. Ousseynou Assane ñi ñëpp jëlal neen tournoi Jànkalaar. Hmm. yàgg neen fi fi lañ dëkk fi lañ dëkk. donc hmm. fi seen équipe la quoi. mais est ce que réellement da ngay def di fraude des fois dañuy wax ASC dañuy fraude est ce que yooyu da ngay koy dund wala déet président ñamal ñu ci affaire man man ci ASC la nek non duma ko tuddee fraude. Ah, mais en tout cas nawétane lepp lu mu laaj rek. ah da ngeen koy def ko da koy def. ah ok man nak duma ko tuddee fraude. waaw ah, da ngay liggéey dal mais dañuy liggéey dal suñ coin lepp lo xamanteni yaakar yaakaar ne buñ ko défé hmm. et je précise bien dans les règles de l'art. dans les règles même buñu ñuy ñaanlu sax ma ci invité tamit ay ASC yu bëri. Mhm. ñu éviter rek. Mhm. dugg ci ngeen bal ma ci cadeau bi ay xërëm. ay xërëm wala ay fétiche yoot dëgg la jaru ko nen ñaan lu rek simplement. parce que ay xalé lañ yor quoi. ay xale lañ yor jàng ñu day liggéey sen yenn avenir. dañuy jang ñi ñu ngi liggéey. merci beaucoup ok na ci ASC yëpp bay xel. donc président Aliou Ba li wax vraiment c'est un message fort kon yaakaar bu nekké sen président war ngeen ko tàcc cadeau yi nga xamné yëkëti nako mhm. alors fu moy mujjé nak fu may mujjee mooy après dañu war a jël coach bi dañu war a jël benn supporter pour ñu gaaw parce que dañu war a amaat beneen liggéey bu ñu war a defi fu may mujjee mooy victoire dem bu final bi yàlla leen jik mais fan la leen di yóbbu léegi nag parce que nawetaan commencé gul te yaakaar naa ne ren championnat bi tàllal la. donc nan ngeen koy préparé parce que daaw yéen ko yoroon n'est-ce pas mhm. ren ngeen ñëw tournoi bi ngeen ubbeeku jël ko yàlla na leen jik ak jàmm mais fan la leen war a yóbbu nag est-ce que joueurs yi dañuy caaxaan est-ce que joueurs leen di ñuy topp xam nga di foo beek baal beeg nelaw ba midi nan ngeen koy préparé championnat bi euh, championnat bi euh, je précise que ñoo sommes euh, championne en catégorie cadette et senior. Mhm. ci défunte saison bi. Mhm. donc euh, biñ ci doon dem préparation bu mhm. euh, je touche du bois. je pense que groupe bi mu ngi fi. et que dafa renforcé wu. donc gëm-gëm bi ñu à bi ñu jël euh, championnat bi daw encore gëm-gëm boobu luñ ma rek mooy. Mhm. di ñaan yàlla nag mooy maye. Mhm. parce que yàlla moo defoon. Mhm. ñun ñu nekk champion. parce que équipe yëpp. Mhm. ay équipe joueuse len dañu mun football dañu am joueur. ok merci beaucoup donc dinañ préparer préparation bu war daal. Mhm. dinañ ko def. djel mhm. ko match par match. tek lepp ci loxo yalla di ñaan yalla mu défat ñu. Euh, champion. ci ñaari catégorie yëpp. deug la waaw merci beaucoup kon ñu djel le le capitaine muy Ousseynou Doumbia. mu ñëw. tenu AS Jankalaar. Hmm. Ousseynou ñu ngi lay nuyu. waaw ma ngi lay fay. waaw man maa avant tout d'abord maa ngi tudd Ousseynou Doumbia maa nekk capitaine ASC Diankalar waaw maa ngi remercier aussi tamit seen teewaay bi fii di féliciter aussi tamit sama gars yi parce que jongante bi moom méttoon na trop ñun huit équipe leen woon euh, yàlla def na nu joué ko ba dem final yàlla may nu ndam ndam boo xam ne tamit bu sedd suñu xol la ñu ngi ñaan yàlla aussi tamit ndam bu am bii nii mu gën a continuer du law waaw si kanam kanam quoi waaw aussi staff bi supporters yi aussi tamit mais maire yi ko ñuy yëpp amul lu ñu ñaanul fii nii pour rek xam nga nu indi leen affaire bi nii parce que lii dafa neex. final waaw fierté la quoi parce que man moom yàgg naa football ay final yu bëri mais bii nii moom raw na. Mhm. parce que yëg naa si sama bopp quoi jànkalaar moom duma si wax ne gan laa parce que man fii laa bokk. Mhm. waaw jànkalaar sama sama sama équipe la waaw. soo gisee fii ñun ñii ñëpp ñu toog nii rek wane na carrément ne Jànkalaar c'est la famille. Mhm. parce que ñun noo bokk ndey ñun noo bokk baay ñun nooy liggéeyandoor ensemble tamit aussi. Mhm. Mhm. lépp luñ bugg tamit aussi tamit ñu ngi siy waxtaan te ñu ngi siy dox. kon damay ñaan yàlla tamit yàlla seytaane mu dugg suñu biir waaw mu jàppale nu aussi tamit fu mu bëgg egg tamit ñu egg fa parce que ñun ay xale yu ndaw leen waaw dama gunu fenn nag tollu gunu fenn aussi tamit dañuy jéem rek nit moom lépp lay def rek liggéey liggéey moo nu may lii nii yëpp ab gëm-gëm suñ gëmutoon lii nii ak liggéeyuñu aussi tamit xam naa ne duñ egg fii nii parce que ku seetaan jànkalaa nu muy fubalee rek na carrément ne xale yi ñu am jom leen ñu am fulla leen ñu am fayda leen parce que lu ñuy wane entraînement rek loolu suñ duggee si biir terrain bi loolu aussi tamit la ñuy wane mhm. kon amul leneen loo xam ne aussi tamit war naa ko war a mun a rapport sama gars yi surtout nag du leen ñaaxaat ñu gën a liggéeywaat mhm. parce que lu si kanam euh, moo gën a neex ko luy ñëw nii mhm. parce que daaw demoon nañ fa ñu ñàkkoon ko mhm. kon ren suñ fa demaatee aussi tamit bëggoon naa ko ni yëkkatiwaat ko indaat ko fii nii mhm. parce que coupe bi nii naroon nañ ko yóbbu Koupentoum de mais duñ ko yóbbu dañuy xaar beneen bi ñëwaat bi mu nekk ñaar ñu ànd ak moom dem Koupentoum feete ko foofu noonu waaw comme ni ñu wooye ay jànkalaar rek AS ñu leen di wax que bête noire mm-hmm. étant bête noire te démb tamit gis nañ li ngeen joxe si terrain bi yow ak ki nga xamante ne mooy sa jumeau mm-hmm. donc li nga joxe si terrain bi ek sa doo ko def ci micro bi nga wax bu baax sa waa ko ñu gën xam aussi préparation match bi nan la demee bien vrai que yi doo leen li nga joxe indi leen ci li nga xamante ni moom li ngeen gagné trophée bi mm-hmm. ñu bëggoon nga wax ni durant entraînement yi nan la demee fi mu leen indi lan la lay def. non man moom damay wax ne man tiituma si benn côté quoi parce que nu ngi entraîné te aussi tamit joueurs yi am nañ récupération te am nañ gëm-gëm bi tamit. Mhm. parce que nit moom lu nga entraîné loolu la soo duggee tamit loolu kese tamit ngay wone. Mhm. te sama gars yi tamit ñu ngi siy jàpp ñoom ñëpp. kenn ku nekk nag day bàyyi itam heure bu coach su euh, wootee entraînement dañuy ñëwul euh, heure te mhm. dañuy respecté affaire aussi tamit te bolog leen ñuy mhm. te loolu wane na carrément ne ñun ñëm noo noo noo bëgg affaire bi quoi mhm. yaa ngi kon di man kese kon man lu ma joxee tamit si terrain bi xam naa ne sama morom aussi tamit loolu la joxee comme sama jimo ak ñeneen ak ñeneen parce que ñun moom ku nu xam rek xam na carrément ne soo duggee si terrain la full ak fay rek soko amé amee rek fépp foo mënta dem aussi tamit da nga bëgg football mhm. parce que du man nawetaan kese laay football dama football championnat damay dem fenn fune kon damay ñaan yalla aussi tamit li ni mu gëna continuer rek man mom instant bi dama contane parce que li fierté la si man quoi duggé mhm. sama dëkk ñëw fi ni xam nga di nawetaanu jël coupe surtout nak ma tàkk Brazza bi mhm. affaire mom contane kontaan dama contane ba mënu ma surtout dembu maa ko doon wax sama gaay yi ma capitaine la dé musuma wax heure bu entraînement wala ñu tok ni massi du ma mës a wax mhm. maam Thierno ran moy wax mhm. ma ne sama heure wax nak jotagut surtout nak ñu jël coupe bi foofu laay doog a mun a waxee mhm. te dëmb bu ñu jëlee coupe bi tamit amuñu temps bo xam aussi tamit tok nañ ko pour mëna waxtaan mais contane motax parce que contane na trop billahi bu ma bu bu may damay damay na carrément man yëg sama bop parce que waaw bon préparation dama yor ay donc entre guillemets yo xamné ñu ñu déggal koñ bi japp ci ñëpp japp ci donc chaque fois ñu ñëw di entraîner comme il faut respecter aussi consignes donc je pense que buñ débuté tournoi ba légui on a fait un parcours excellent donc bi mo doon demb nek suñu cinquième match suñu deuxième match lu ñuy ak jamono dajé garab gi dóor 2-0 après Amad jubóo dóor 1-0. après continué waat encore amaat garab gi final donc euh, fallait que match bi metti donc koo dóor dañuy naan ne dañ lay woo ba ne la Dakar du saf ñaari yoon ma ne ko déet Dakar kay day saf ñaari yoon ba ñetti yoon sax su leen neexee ñu ne ma ah loo teg loolu ma ne ko ah ndox du bàyyi yoonam te fu ñuy leen jaaraloon rek la leen di jaar yàlla may na ñu jaaral leen foofu aussi gañewaat leen ci lu yomb. merci Jean euh, avant ngay ñëw si ASC Jànkalaar am na foo nekkoon. Mm-hmm. ñëw nekk si ASC Jànkaraar lan moo waral lan moo waral ñëw bi lan moo waral. waaw kañ nga fi ñëw quoi lan moo tax nga nekk entraîneur bi tey. donc euh, avant may doon ASC Jànkaraar parce que Jànkaraar fii bi ma njëkkee fi ñëw en 2009 fii laa fekk kade gi. Mm-hmm. donc euh, yor naa leen fubal naa fi aussi donc première année bi mu leen yoree kade gañ naa fi coupe après fubal naa fi un an senior ba deuxième année bi si laa toxu génn koñ bi dem secteur yéegu. jàmm nekk fa ba ci kanam dem dëkki Mali mu dëkkee Mali si laa ñëw fële après si laa yor waa daara ji ma defak ñoom un an annexe ba extraordinaire jëlal leen trophée depp euh, championnat euh, ñu joué régional aussi ma jël ko donc euh, gañuwaale aussi coupe maire bu mu fi jógee aussi ñib si waat nekk si koñ bi yor jàmbaar donc suñ dëkkandoo yu baax au passage yor naa jamono benn année donc euh, yor naa fi jàmbaar ñu qualifié coupe départementale euh, championnat ak huit grands donc euh, année successive bi si laa fa jóge comme si koñ bi laa jóge aussi donc mës naa fi jaar donc baax na aussi nga dellu si waat si koñ bi comme yenn xale yu bëri bu ñu fi màgg juddoo màggee sa kanam lañu ñu màggee donc lépp loo mën a gañe feneen te gañewoo ko aussi si koñ bi donc je pense que loolu engouement bi du neex te nawetaan affaire koñ bi la looloo waral daaw ma ñëw fi donc on a fait un bel parcours donc équipe bu ñu doon xaaree ñàkk xaar gars yi naan ko outsider bi ñoo génn ba jël premier championnat bi donc je pense que loolu lu neex la. mais Jean démb si biir final bi ci seen pecc ya ak lëmbali lan moo waral loolu. lëmbali bon ndax loolu mën nga mën nga ñëwaat. non démb loolu c'était une chose déconcentré woon kese la. donc amoon en tant que coach. amoon confiance am bopp la non non mhm. en tant waaw waaw ma rek. waaw tant que nga ñëw nga war a présenté wu. toog ñëpp di lay bàyyi xel yow nga responsable. nga ñëw di fecc. waaw waaw mais loolu loolu loolu dara néew si je pense que final fête la te aussi nit ki soo fekkee yaa ngi entraîné équipe wóolu sa bopp donc sooy ñëw da ngay won ne carrément que man foo tax ma jóg gagné rek dem ñibbi. dañuy toog ba si kanam naan ma safee ci lan ma ne guddi guddi mu ne waaw ma ne ko jàngalaa ma lan la ma ne guddi guddi jàngalaa rek ma ah yow moom teg loolu ma ne ko fu ma ah moo war a safee ci mais parce que ñun mosuñoo ko fi loo xamante ni man mosuma ko gis mhm. maanaam gis nañ fi ay njulli xaw ma njulli sax njulli laa ko mën a tuddee ñu ngi duggee waaw ah te gis neen fi ay gas fu nekk ñu gas ko. gars yi affaire ñun ñëpp a tiit yow loolu yow loolu nu xanaa da ngaa da ngaa demoon ci séeréer yi. fu mu dem ba fenn man moom sama stratégie lu ne mooy leen teel a jog 16h naaj bu tàng liggéey. non xam na ni yaa ngi liggéey. waaw beneen cadre nag bu ci bokk kooku dirigeant koy gérer. mais man moom yaa yebal gars yi a doon kon président bi tim am na lu mu def ak yow. waaw lu mu def ak man baax na mais quand même que tous les moyens sont bons pour gagner président bi a xam ñu. waaw fi moom bàyyi rek euh, xam nga dañuy naan ne euh, gars yi. fan la lay yebal président bi fu mu mën na est ce sama biir kër sax toog. mën naa non xam nga ni yow yow mënoo ko ñun xam ne man ak yow ñooy wax. waaw. tuur yeeg yooyu yeeg affaire yooyu. Ah, jàngate la rek. ak sarax si. laax bi ak béy bi ngeen rey béy bi. waaw aussi lu bëri ak nag bi. boole ko non nag moom rayoo leen ko béy ngeen rey moom. Mhm. béy ngeen rey. donc loolu laa gis c'était une finale donc fallait que jouer def lépp aussi aar booy yi donc ñu passé une très belle finale gagné ko métti woon na commencement bi trop mais bu mu ñibbisee neex na. donc je pense que à l'idée de tous je remercie Tepoua pouvoir confiance que me réitérer. réitéré remercier aussi ce joueurs je remercie les dirigeants de remercier surtout les koñ bi ndaw Djigen, te bi la inshallah liñ doon def gagné grand may championnat may ñu départemental ba doon incha allah ñu dem régional. contrat bi ñaata année la sa diggante ak ASC Jankalaay. sama diggante ak ASC Jankalaay ASC Jankalaay laa jóge fii laa jóge woon dem fii laa ñëwaat. bu dee benn ASC beneen ASC moom man ASC chaque moom mouvement nawetaan ASC seet si ma. xaalis baa ngi fi man du xaalis nag man moom du xaalis mooy lii nii merci beaucoup. monsieur Omar Dramé kon dañuy ñëw ci Abdou Karim ah Abdou Karim comité de supporters je pense que moom moo war a ñëw. donc yaakaar naa kii moom bu ñëwee aciko yi day day woy parce que il faut mu woyal ñu nan lay supporter équipe bi loolu il faut ñu bàyyi ko mu def animation bi ah, ah supporter yaa ngi nii àndale nag moom bu ñu jógee fii bu koy nit ñi seetaan Firi Info ñu xam ne vraiment jànkalaar am na animation allo jëlal ayca supporter yi ayca nan ngeen doon supporter démb jànk aspect sport am na am na aussi parce que li mu def nii culture la bokk

donc jànkalaar dégg ngeen ni ñu ñu woy alors yow en tant que yow mi ñu jël pour nga wax ci supporter yi nan nga dundee final démb. final parce que euh, avant ñuy dem stade si si entraînement yi dañuy jouer yi assuré ne carrément ñoom dañuy jël final. ñoom lenn rek moo leen ñuy jaaxal mooy su fekkee ne ñun dañuy assuré mais suñu assuré rek ñoom seen côté moom bi teel a ko baax kontaan nañ ne si trop trop trop trop tamit di si wax euh, waa xëy ñoom it euh, seen seen seen seen comment dirais seen représentation. muy joueurs yi ñëwoon. non non seen supporter seen jëm. amutoon joueur yi xëy nga football fii. non waaw am na joueur xëy gi fi ñëw si football am na am na joueur xëy gi ñëw football de même que tamit jàmbaar yaakaar naa ne ñooñu peut-être même seen supporters yi soo gisee tamit ñu ñëw xëy na loolu si la bokk mais dañoo am amoon ci su wane ni ñun ñoo ñun ñoo bokk Koungheul lenn nag dinaa ko si gaaw wax trop balaa ma koy fàtte mooy waa garab yi luñ def def mooy dañoo attaqué suñu support suñu supporté suñu suñu élément président dama bëgg dama bëgg tey émission bi seen émission spéciale du du plaider ay problème mais dañu wax seen seen li ngeen dundee yow président commission supporter wala nga nekk nan nga bëggee nan bëggee woon ko sa gars ne man bëgg naa ci match bi joueur bi et sa gardien bi bëgg naa nga ñëw gisee jour bi noo gisee jour bi gardien bi da ngeen ko tàccu xanaa. waaw ñëwal ci jour bi waaw capitaine bi moom laa njëkkee quoi. voilà jour bi yow en tant que supporter nan nga gisee gars et puis am na koo xam ne def na faay nga ne ah kii de moom def na faay. ah faay gisee sa jour. non man damay ñëw si capitaine capitaine uh-huh. capitaine bi ñëw na fi gars yi ñu bëri a naan ay question de mercenaire wala du daanaka bu jëlee wala leneen lenn moo ko fi indi mooy amul dafa am amul ci équipe dafa ñëw rek bokk booloo doon benn daal boo tombé tamit day rassuré joueur yi xam nga moom rek su taxawee si si défense boobu ñu soxla leneen de même que tamit gardien gardien bi moom amul amul. gardien bi nga ko jënd wala. non non gardien bi fii la juddoo. seen kër kay ñëpp ay gardien la c'est que moom rek moo nekk efficace ñu si la ci amul njëriñ mais est-ce que gardien bi dëpp amul départ non non joxuñu ko dara. ah laalul dara. wala depuis bu championnat bi commencé. waaw ah, encaissé wu. encaissé wu dara. encaissé wu dara. kon daal yow kontaan nga ci équipe bi daal donc est-ce que yow sa comité de supporters yaa ngi def ay répétition di préparer match. waaw nga ni waajal match ngeen dajaloo def répétition. waaw yooyu. est-ce que tamit da ngeen di toog ba final rek ngeen ñëw supporter ASC. non ñenn ñi dañ koy def ñu dëggal. est-ce que mun leen di supporter chaque jour parce que jour chaque jour final la président. waaw waaw loolu loolu loolu dama ko suñu liggéey. parce que ñoom chaque chaque chaque match li ngeen di sàmmati. parce que après xam nañ côté jigéen ñi nag moo ëpp doole jigéen ñi waaw ñoom ñooy bàyyi ba final ñoo ñu sañse dem mais ñun góor yi moom kon yaakaar naa ne seen ci côté bi tamit commencé na ngeen ko jàppale ci suñu parce que cadet boo xam ne la vraiment à l'image de de de l' équipe sénat loolu la ñu xamee Diancala. pour dire man sama équipe bi moom lu cadet du sañoon équipe bi amul amul amul benn équipe bu ñu fiy téye wala bu ñuy tase fii ñu am lu ñuy sikki i mais lu mu la bëgg a laaj est ce que yow xam ne boo a da ngeen tiit. am rek loolu amul vraiment kii laa gën a ragal. non non loolu amul si loolu benn ASC. man Barça pompe à gaz bi bon dama siy ñëw. dama déglu en émission pour donc président ñu ngi lay jox pour nga tëj maa ngi gis mon frère Mamadou Ba le grand artiste voilà Firi Info président nag li ñu leen bëgg mooy nga lancer un message solennel de Firi Info jëlal micro bi voilà Firi Info. ñu gars yi dugg page Facebook Info bokk ci yi. joueur talenté yi lépp lu fa am dañ ko dugal lii dañ ko fay dugal fa dugg da ko gis si site boobu nga xam ne mooy firi info point com jot a xibaar mu liggéey Facebook YouTube Instagram tout fépp la donc ñun ak yéen takkusaan nawetaan day continuer donc président la ñu bàyyi ñu ko tiree ngeen fi ñu commencé woon di ko dalalee firi info vraiment ak vraiment Thank you.

huit minutes lu ma ndey gaañ ay ñaar jaay talentueux ñu ko nommé euh, Diaw. Diaw ak Ibou. Euh, de même que Diambar bi nga xamante ni dafa jël Modou Ablaye euh, mu jox ñu ko aussi. je précise que Modou Ablaye boobu noonu moo nekk meilleur joueur tournoi bi. Modou Ablaye tàcc leen ko mu tàcc. di remercier aussi suñu yeneen lëkkaloo yi nga xamante ni mooy jamono. ñoom aussi ñu ñëw def prestation yu di remercier encore mes frères yi nga xamante ni sont son nag Pendo originaire les amis de Mame Thierno frères de nga xamante ni ñoo leen di remercier ne jàppale nag il ma leeral parce que dem ñu foog ni jàppale bi dafa am lu mais c' est trouvé que heure soxla woon pour dimbale ñu côté technique entraînement amical lu euh, doon yokk et que ci dynamique boobu lañ bëgg a continuer même garab yi nga xamante ni ñoo ko dóor démb sax pare neen pour defal ay machine préparation parce que Koungheul mu ni neen la ñoo ko bokk euh, di leen wax euh, di leen encouragé ñu aussi di leen wax que démérité mais il que am gañe coupe bi yàlla démb ñun la choisir woon mun naam beneen yoon ñëw buñ dajee yàlla mu choisir leen di ñaan aussi euh, ñun moom heure buñ dajee ñun mais aussi dama nekk ci mbooloo di wax et que gars yi ma te fakastal déggal leen donc dama leen di woo ci non violence ASC e bi yëpp profité aussi woo ci ASC yëpp vaccination aussi su nawetaan dañ ne il faut carte vaccination waaw bàyyi ko woote ci non violence dinaa ñëw ci vaccination mais non violence maa ngi ci invité ASC yëpp les ASC pas yu Koungheul sax mais yëpp parce que violence bu amee rek euh, mun na poussé autorité administrative bi pour jël décision boo xamante ni bu arrangé jeunesse dans cas jeunesse bi am benn occupation donc nañ def ci sauvetage wax jéggalu ci lépp loo xamante ni ay sa jànkala waroon na ko am comme taxawaay ci euh, gouvernement bi te taxawee woon di jéggalu ci lépp loo xamante ni jànkalaar def na ko te waru ko woon def ci tournoi donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa waañ bi nga xamante ni kuréel ko jiite woon di sant xale yu jigéen ñëpp di sant maire ba mag ak ndaw di féliciter aussi équipe bi yëpp mais di beral félicitation suñu gardien bi nga xamante ni jël meilleur gardien bi tournoi muy Lat Diop di jégalu aussi di comité

ak jeunes yi nga xamante ni sax beneen ay si leen maanaam ñu bokk ci nga xamante mooy xeex mbas euh, léegi les mesures barrières yi nga xamante ni c'est édicté par les autorités sanitaires ñu def pour respecter ko ñu dem ñàkk ñi suñu demee stade ñu yóbbu masque ak suñu gel jéem a respecter distanciation sociale loolu laa amoon daal di gërëm ñëpp.